biram Souleye xam na lan la merci beaucoup merci beaucoup Girassi léegi nag dañuy jox kàddu gi ki nga xam ni moom mooy biram Souleye Diop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 dama ni ñun 150 députés doyuñu 150 députés doyuñu li ma bëgg mooy le 17 novembre fi ñu jaarale woon gars yi élection locale jaar fa élection législative yi jaar fa présidentielle nañ fa jaaraat parce que alkaati yi ci Pastef duñu bàyyi dóori ci urne yi alkaati yi ci biir Pastef duñu bàyyi dóori ci urne yi Amadou Ba ak les quatorze personnes yi nga xam ne ñoo bokk nekk ci liste bi te dëkk ci biir Thiès titulaire comme suppléant li ñuy wax mooy ñun ñëpp dinañu ànd ak ñoom dugg këroo kër dugg koñoo koñ dox ci mbedd yi wax ni lii ñu indi muy le référentiel vision deux mille cinquante moom la ñuy campagne ñun.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 mais damay ànd ak DJ mu ànd ak yéen ngeen xam kan moo war a jël kàddu gi.